Le poste de santé de Touba Madianan est parmi de ces formations sanitaires qui accueillent plusieurs patients quotidiennement, mais vit également le summum de ses difficultés à cause de la vétusté des bâtiments, du manque d'ambulances, entre autres services nécessaires pour sa bonne marche. L'infirmier chef de poste et la matrone n'en diront pas le moins. Il y a le problème d'ambulance. Je vous avais dit tout à l'heure en, Wolof qu'avant-hier, on m'a appelé pour un cas d'urgence au niveau de la maternité. J'ai essayé aussi d'appeler le district euh, ça n'avait pas marché parce que là-bas, il y a une seule ambulance qui est là-bas. Maintenant, j'ai appelé 28, j'ai appelé Khaira qui est près de moi, même dans le je l'ai appelé. Vous avez vu, c'est ça, c'était difficile pour nous. C'était difficile pour nous. Maintenant, à la fin, on avait réglé le problème parce que l'ambulance de 28 était venue. Effectivement. Ça, normalement, le poste devrait, chaque poste de santé devrait abriter un logement pour l'ICP, un, un logement pour la sage-femme. Mais malheureusement, nous, moi, je n'habite pas au niveau du poste. Même la, ma sage-femme n'habite pas au niveau du poste. donc d'où la nécessité de créer des logements pour nous. problème la salle d'accouchement est délabrée, les supports de lit dilatent, les housses sont déchirées. Le pire, il n'y a pas d'eau. Regardez, dans un poste de santé qui accueille des centaines de personnes quotidiennement, ce n'est pas du tout normal. Hein. Devant ces difficultés, aucun apport des autorités compétentes n'est encore senti. Puis le fonds de dotation municipale n'est jamais versé par la mairie. Hmm, pour l'instant, ce que je peux dire, depuis que je suis là, euh, je n'ai pas reçu euh, des fonds de dotation venant des autres. Que normalement, je pense que chaque année, on doit doter euh, des fonds de dotation, le fonds de dotation en médicaments au poste de santé. Mais jusqu'à présent, moi, depuis que je suis là, je n'ai pas reçu. Dans un contexte lié à la COVID-19, les autorités compétentes sont interpellées pour lever ces quoi Babacar Sambutuba, Africa 7. ay jafe-jafe yu metti la nemmeeku si poste de santé bu Touba Madiana bo fi ñëwee di nga nemmeeku ni barab bi màggat na amul salle d'observation bu yemb ambulance moom waxi noppi boole kook jumtukaay yu màggat te sax nag li muy jël bés bu nekk jéggi na dayo si ay doomu aadama yu tawaat loole waral kilifa yi di ko jàmbat ICP Lat Soukab Faye ak Fat Diouf di matron bi. vraiment xanaa les moyens de bord moyens de bord yi rek la ñuy utiliser euh, pour pour pour liggéey moo tax fekk yow ñëw nga bu gis ko. normalement loolu dañ ko euh, amon nañ su ki sax comment dire ci idée amon nañ aussi euh, xalaat bi pour pour pour pour defar ko mais moyen bi mo fi nekkut moo taxoon euh, même signe bi mosoon na fi ñew sax. wax naa la ambiance bi légui construction aussi ñu ñu ñu poste bi parce que man fi ma dëkk maa ngi dëkk bu garage à à peu près ay 2 un kilomètre fini, ci biir amuma logement sama sage-femme bi amul logement. bu nekkee urgence ci guddi gi dañ lay woo te obligé nga jël taxi wala nga xamoo nooy def pour pour ñëw xam nga loolu aussi métti na te normalement booy boo boo booy dégg poste santé dafa war a am logement sage am logement ICP dara bu xewee ñu ñu mën a jël ko en waa waaw fii moom am na problème ndox dëgg yàlla. te maternité moom ku ni maternité rek xam ne ndox moo ko yore dañu am problème ndox ba yenn saa yi malade bu ñuy ñëw sax dañuy indaale ndox waaw robinet yi dañuy tëj sonn nañ trop moom problème ndox daal moom am nañ problème lu ko mais problème ndox daal moo ñu gën a sonal ndax maternité moom mënut a dox sans ndox waaw lal yi màgget na matelas yi xotteeku na ah ventilation itam amul ba bi sur de couche ngeen dugg salle d'accouchement da ngeen fa fekk nii malaat. gënati metti jamono ji ñu ne mekku nii ñu ngi doon xaar ndimbal ci mairie bu Touba war leen jox fonds de dotation waaye France daal di xëneen. mais xam bu nekkee budget bi waa mairie la fonds de dotation mairie moo koy jox tout l'ensemble des postes de sa zone léegi nag ñun man mosuma ne man bi ma nekkee fii ba léegi kenn mosuma jox euh, kayit boo xamante ne fonds de dotation da ngay dem ñu bind ñu jox la médicament. waaye man fi ma nekkoon dañ ma ko do sax année may ma jot ko mais fii moom jotuma ko. jamono jii nag ñuy wax jàngoroy coronavirus. mbir mi dafa gën a di jéggi dayoo. loolee waral ñuy sàkku si kilifa yu dugal ci seen loxo ndax jàpp nañu nii lii ëpp na si barabu fajukaay yi Babacar Samb Touba Africa 7.